alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din asalaamualeykum wa wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërm di jottali am nuyoo ci seen kilifa ga alxaaji Fallou Galasi la di ñaan sun borom defal ko tawféex ak taysiir waaye nag di leen delloo njukkal te di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a koy saytu. waaw xasida yi de wax dëgg sama diggante ak ñoom mën naa ni xalaaqa bu yàgg la maanaam lu yàgg la ci xam naa ni mën naa ni ci jamonoy daara ji la te kuy xam ku ne xam ni Euh, comme li daar yi baaxoo moo xam daar yi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba wala faneen maanaam liñ baaxoo mooy jàng alquran ak xam-xam waaye ku ne xam na ni bu fekkee daar yi Sëriñ Saaliw moom mën nañ ni dafa dafa boole yooyu yëpp maanaam kaat yëpp ndax boo fa nekkee di ngay jàng alquran di ngay jàng xam-xam di ngay liggéey waaye tamit di nga jàng xasida te ni ngay jàngee alquran di ko tari di ko mokkal noonu ngay jàngee xaside aussi di ko tari di ko mokkal mu mel ni dangay ngay am sëriñub daara waaye tamit dangay am maanaam jëwrin boo xamante ni moom moo lay jàngal xasida maanaam yooyu yëpp da ko ci am léegi bis yi nga xamante ni daanaka doo ko jàng alquran mooy àllarba alxamis ajuma yooyu da ngay jàng xasida di ko tari ñu la ciy sonal di la ci dóor nga koy tari di ko mokkal comme ni ngay jàngee alxuraan di ko tari di ko mokkal guddi gi nga dem taxaw kuréel ko te doo ko xool mën naa ni xëy na ca jamono ya ma fay nekk ci la mokkale woon xasida yu bari waaw maa xasida gi ma njëkk a mokkal moom la wax inna ni wastu bil ilaa ilmu hiini min zaarifan ximati li rabbi taala raajiyan sax yahu bi maa hilmahini xasida googu falaa ko njëkk a mokkale falaa mokkale xasida waxaani afi sunqa wajjaxtu wàcc xiliman takrimahu baana busra lana xad ataanal juudu wal karamu saana ilaahi bil munajihati jawatu bil fulxaani rabbiyal muhi bari na bari na ainsi de suite yu baree baree bari bi ma ñibbisee nag ba nekk sama kër baay mel na ni mm, teewul daan naa ko daan naa ko daan naa ko rajo santu ci kër gi ndax bu guddi masaana jot daan naa taxaw sax jékki-jékki rek samp diir bi nga xamante ni jóge naa daara ji nekk sama kër baay waaye ginnaaw bi sama baay yóbbuwaat na ma ci beneen daara bu ma fay wéyalee sama njàng ab internat la daara yi siñ laxat siñ abdul ahat mu seex Suhaybu foofu fa nekkoon suñ seex say yoroon ma fa daan fa wéyal sama njàng ba ma fay nekk sëñ bi dafa départagé woon daara ji maanaam daf ko partagé woon nag ba du moins nga xam ni euh, am na yeneen mbàkki mbàkki yu ma fa bokkaloon nekk mel na ni waxtu waxtu waxtu julli juróom yi bu ma jot maa ngi fa nekkoon Cheikh Moustapha ak sëñ Mourtada moom sëñ Abdoul Ahad Soyebu ak Cheikh Bachir bu euh, tisbaar ma saan a jot sëñ Mourtada day noddu sëñ Moustapha gee mais gee yu maa ko daan li xam sëñ Basiiru moo daan euh, moo daan moo daan moo daan noddu timis gi mais teewul ginnaaw timis bu masaan a jot da daf may taxawloo taxaw ma ma ma ma ma jàng xasida may rajas busra busra la naa boo sa jamono dama daan taxaw ba sax am na ñu ma daan tooñ naan ma siñ murtada busra ma daan jàng eeru loolu xëy na ba léegi moo topp ndax bi may nekk ci école yi Mbàkke Mbàkke kat am na ñu naan ko annexe lycée xam naa sax di ngeen ko xam jamono yo ma fay nekk Ah, mbooleem lu fa nekkoon ci daayra ak kuréelu xasida ya fa amoon ak alxuraan yooyu yëpp ci sama ci sama loxo la ne woon maa ko jiite woon ànd ak ñoom ci durus meeg ak yu ni mel loola nag xëy na ba léegi daf maa daf maa daf maa topp waaw xëy na sax nag moom ah, li may toog di ko durusantu bëriwut waaye xam nga loo mokkal moom xëy na sax dangay toog di ko jàng ci sam xel waaye yi nga xam ne xëy na mokkalu ko wala ma miin ko xëy na loolu lay ëpp lu may durus lu ci mel ni wakkaana xaqan moom du ma tàggoog moom ci di ko durus waxtu waxtu wu may jullee dinaa ko jàng dinaa ko tari sama xel dinaa ko moo ko loolu nag xëy na ba léegi naan moo ma moo topp waaw secret yi nekk ci biir xasida yi ah loolu de xanaa weesu li li sëriñ bi naan ah, waj xaal tawaari fii li bil bil moxtaari junnata kulli xaariqin maanaam ah, di ñaan yow yow sama borom defal ci barkeb sallallahu alayhi wa yonent bi nga def képp koo xamante ni day jàng sama xaside yi maanaam muy njariñ ci moom maanaam maanaam junnata kulli xaariqin maanaam di ko di ko buukale ci safaan ba mooy annaari ca ca ci ci safaan bi li ci làqu nag ci ay secret ki njariñ bari na loolu loolu loolu ndax li ko waral mooy sëriñ bi ah, bi mu bindee xasida yi daf ko daf ko sànni ci jaww ji ñu ànd ak malaayika yi di sàbbaal sunu borom yii benn bu ci nekk ak la ngay jañ maanaam la ngay ñoddi bokkul waaye daal li ci ëpp solo moom mooy ñoom ñëpp yem bu ci nekk njariñi képp képp képp la maanaam nee na buy euh, tagg yonent bi sunu borom daf koy lemal euh, basangu gaay yu baax yi waaw kon xasida yi li ci nekk ci barke ndax boromam ci boppam lim ci daj moo tax am na ci yoo xamante ni daf lay tarbiya di la tarqiya am na ci yoo xamante ni day xëcc soxol jëmale ko ci jëmale ko ci ci ci ci ci ci sunu borom waaw ay njariñ yi képp la daal waaw loolu daal moom bëgg naa ngeen xam ko waaye nag képp koo xamante ni nag bëgg naa xam bëgg ngaa xam njariñ li maanaam dangay ngay taqoo ak làpp ak sell maanaam boo demee bëri bëriwaan na koo xamante ni xëy na mi ngi ñor di dara ci xasida yi ah, xëy na la muy la muy sàkku sax gisagu ko amaan na amin ga amin ga moo moo moo moo jaarul yoon xam nga am néeg boo ci bëggee dugg da ngay ñëw tijji bu fekkee nag bëgg ngaa dugg dugg gi yomb la dangay ñëw sa caabi nga tijji mais bu fekkee nag da ngaa am caabi bëgg a ñëw dajji bunt bi xam nga loolu day xaw a compliqué xasida yi tamit noonu la demee leen daal xam naa ko ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci taqoo ak akuk sell ak ak laab di ko jàng te koy seetantal loolu moom loo ci woo euh, sunu borom dina la ko may ndax xasida yi moom wax dëgg yàlla barkey képp la Ah, njariñi kase la aussi ah, ah wakkaana xaqande xasida la goo xamante ni sëriñ bi mi ngi ko mi ngi ko bindee ci wurusu wakkaana xaqan alayna nasrul muminin maanaam ci wurus woowu la ko binde mu nekk xasida goo xam ne nag sëñ bi mi ngi ko binde woon gànnaar ah, ndax ci gànnaar naari gànnaar yi dañoo booba dañoo dañoo teel tolloon ci ak njàqare maanaam ak bekkoor waaye nag ak tumuraanke gu métti dikkal leen am na ku ñuy wax Muhammadu Abdullahi ibnu Ayyi kooku moo daan euh, naafileel sëriñ bi moom dafa tudd dafa dafa dafa tëdd ba guddi daal di gént euh, sëriñ bi bind wakaana xaqan ci boppam sëriñ bi bind wakkaana moom moom moom moom Muhammadu Abdullahi ibnu Ayyi moom léegi bi mu ko géntee dafa ñëw ci naar yi mu xamal ne mu xamal leen ni leen de bu ñu demee ci sëriñ bii de gëm naa ni dina leen fajal seen njàqare maanaam coono yi ngeen di dund dina leen ko fajal ñu daal di ànd ak moom dem ci sëriñ bi wax ko jàmmat ko seen soxla sëñ bi ni ñokket daal di dugg ci biir bi muy génn dafa indaali xasida gi indaali wakaana waaw ñii ni sax ah, Euh, avant ñoom ñuy ñëw la ko bindoon ñiiri bi mu ñëwee ci diggante bi la ko bind ndax mbindu mu tooy xépp la nga xamante ni booba lañ tàqali kook mbooleem coona waaye mbooleem tum tumranke bu nekkoon ci ñoom rek keroog wakkaana dindi na ko ba mu jeex tàkk mu nekk xasida goo xamante ni tamit euh, sëriñ bi dafa wax ni maanaam euh, bi àdduna sosoo léegi maanaam koor yi nga xamante ni mas naa am te doomu aadama di ko woor di ci di ci di ci di ci di ci sàkk aw yiw li ko dalee ci ah, gaay yu baax ya ba nit ñu mujj yi mbooleem koor guñ mas a woor rek di ci wut yaaba nee na sunu boroom fayee na ko ci fa maanaam lim lim ko fay ci wakkaana xaqan maanaam wecc na loola mooy naajaytukal yow ma waa xablal yow mi wala yi jaxalta vitra faw xasaw mi mbooleem woor yuñ mas a woor li ko dalee ca gaa yu baax ya ba ci ñun ñu mujj ñi mboolem luñ mas a war rek li ko sëñ bi fayee ci wakkaana moom wecc na loolu mu nekk xasida goo xam nag comme li nga wax sànk njabootu sëriñ bi fonkoon nañ ko loolu fonkoon nañ ko loolu ndax sëñ Saaliw sax daan na wax naan wakkaana moom ku koy jàng nga xam ko ak nga ñàkk koo xam sëriñ bi sedd na la ci boppam moom sëñ Saliou moom daan na ko wax. sëriñ bi aussi waxal na boppam sax daan ni ah, képp koo xamante ni ginnaaw waxtu gee jàng nga ko ñett yoon te ànd ak laab comme ni ma leen ko doon waxee akuk seel la maanaam mbooleem ah, soxla soo am moo xam problème la ak lu mënti doon soo ko jàngee ñett yoon balaa bis baa dellusiwaat siwaat danga tàggoog problème boobu noonu sëriñ bi moo ko wax ak boppam. mu ni nag ku ko jàng nag ah, maanaam di nga am warsagu addina waa ak àllaaxira gee ñu jëm mun na ala xaari isil xuruufi mi ma yafuuxu danna mi maxruufi maanaam nee na képp kuy jàng wakkaana daal di nga am wërsëgu addina ak àllaaxira waaye tamit mu ne li mu wax ci bayit boobu noonu mu ne daanaka yow mi koy jàng maanaam yéen a jang ci am maanaam yéen jang ci am la koy sunu borom fayee sax muy ëpp maanaam dala ciy fay lu kawe lu kawe sa te ku ne xam na ni sëriñ bi lim dund lim lim daj ci yoonu géej gi dafa metti te tar jànkoonteel na fa ak ay coono yu méttee méttee méttee ba ah, lim dund ak tubaab yi tamit ci ci ndakaaru waaw xam ne sëñ bi daanaka digganteem ak digganteem ak tubaab yi ci ndakaaru loolu daanaka lees mënul expliquer la sax ndax metti ak targoom tar moom sax dem na ba ni bu koy fàtt bu koy fàttaliku. Ah, du bëgg du bëgg lu dut jël ngàndaay rek dal seen kaw moom tubaab sëñ bi lool lay wax waaye moo tax mu ne axtaytani malxal ba anda kullama mënaa mina duri maxawta sulama waaye nag ah, sunu borom ah, mu ni barke bu tax na sax mu fàtte mbooleem coono yooyu noonu moom sëñ bi nga xam ne sax nee sëñ bi bi muy dem ci bi muy dem ci géej gi nee na sunu borom may na ma loo xamante ni képp ku aju ci man rek texe nga maanaam kulli murid yi bi yàllu si yasaalu maanaam képp koo xamante ni aju nga ci man rek maanaam texe nga waaye mu mel ni nee na bi mu bindee wakaana ba noppi sunu borom subhaanahu wa dafa yebal euh, Seydina Jibril ni ko waxut waxul ku aju ci moom rek maanaam paa ku aju ci moom waaye képp koo xamante ni daal ah, sa xol jublu na sëñ bi maanaam bëgg nga sëñ bi rek kooku texe ñel na ko moo tax mu naan xulubu jumlatil lasina aflahu li tawajjahat wa rabbil muslim maanaam képp koo xamante ni yow sa xol bi daal ak toq bëgg am nga ko rek ci digganteeg sa sëriñ bi moo xam ngay murit nga aju ci moom moo xam nga ñàkk aju ci moom kooku ah, texe ñel na la kon daal wax dëgg yàlla wakaana moom xasida la goo xamante ni moom wax dëgg yàlla li ci ne ci ci njariñ bari na bari na bari na loolu loolu loolu loolu waaw Sëñ Saaliw sax daan na ci joxe ay lim waaw waaye daal jàpp ne xasida la goo xamante ni daal maanaam bépp ah, ah, soxla bu la fekk moo xam nu mën di toll xam naa ni dina ko saafara waaw kon boog nañ ko fonk bu baax a baax a baax waaye te xam ni daal fii réew mi toll nii ah, képp koo xamante ni daal bëggoo sa moroom maanaam maanaam bëgg nga sa moroom ñeela rek ci teraanga ak ci lu mu doon dee ko saxal waaw ah, waaw moom wakkaana waaw soo lay kase la ah, يا أيها السيريان لا تستحيوا عن الهدى boo di def nistaxiru maanaam boo koy jàng boo koy jàng nii ci xëy na donga bi nga xam dafa ne ci daal di ko jàngi maanaam wastaxiru bil wax waaye comme que da ngay liir yàq noonu ba bil xulumi wattani bu majaalisa saxaar maanaam yéen ndaw ñi bu leen soxla wàll lenn waaye ñu ngi jàng waaye aussi day watane ko jotaay waay dexe bi jotaay waay dexe bi au début mooy jotaay ndax ki nga xamante ni moom xëy na day sàkku xam-xam dafa war a toog ak dafa war a toog ak ñoo xamante dafa toog war toog ci jotaay boo xamante ni bu ko toogee dina am ak dolli ci xam waaye bu fekkee da ngay toog ak ñoo xamante ni xëy na bokkoo leen jumukaay nga toog fa xëy na ba na nga koy jógee doo fi jëlee loo xamante ni dañ ko ko moom ca lam ne rek ci la lay ah, xëcc ndax di seetlu laa doon wax naan ñaar ñi bu ñu ànd di wut àdduna te nu mu yóbbu am na ku ci bëgg na xamal ñaar ñi kon booy toog da ngay toog koo xamante ni da ndax ki ngay toogal amaan na mën naa dem ba di la génne ci la nga te mooy di la génne ci li nga te mooy dëgg nangam bi ak laa li ngay sàkku nangam ak nangam baaxul ne ma wuti xaalis wala reer moo tax sëriñ bi doon wax sax naan sama man nahaakum ani taallum fa mi ngi lay tere saako xam-xam sa diggante ak xam-xam rek saako xam-xam kooku ndaw ñi xam daal dañoo toll ci jàng nañu farlu te xam ni kat fi réew mi toll ah, jàng mënut a ñàkk ndax àdduna day dox te buy dox da ngay ànd ak moom ndax dina dem nag ba toll foo xamante ni daanaka dañuy soxla borom xam-xam fi jógee sax soxla nañ ko waaye dem ba toll foo xamante ah. maanaam day soxla borom xam-xam lool kon ndaw ñi buñ yàkkamti ci lenn boo tollee ci waxtu sàkku xam-xam jàng demal nga jàng boo ci nag ndax ak nit ki étape bi nga toll da nga koy weesu ndax bu fekkee da nga koy toll sànq ba ba bu ko defee ah mën na laa mën na laa indil ay ay jafe-jafe sax xam nga benn écrivain bu naan l'homme doit travailler le matin de sa vie parce que projet soit de son existence maanaam ci sax ndaw da ngay dem ba góor yi su ëllëgee nag doo am lenn lenn loo ci fekk waaw moo taxoon sax mu naan taxallumul xilmi taxallumul xilma li wàcc xil day dunal munafasati wa tabaay kon si bu demee naan dem leen ngeen sàpp li xam-xam ngir jëm yàlla te bu leen ci boole ak puukare kon nag war nañu góorgóorlu te dox nag ah jëm sàkku gi nag dafa métti yaa ngi dafa métti dafa ànd ak ay ay ay ay ay coono te it sëriñ bi sax loolu la wax naan xam-xam dafa nekk loo xamante jox sa bépp jox la maanaam ku xam li ku xam woon koo xamante ni nag da nga koy jox sa lépp du lay jox tuuti ah kon kooku war ngaa yokk ak góorgóorlu bu baax a baax a baax moo tax mu naan hatta tukkiyo kulla kon kooku xam-xam dafa nekk loo xamante ni da nga koy jox sa lépp mu daal jox tuuti kon daal war nañ ci nga xam ni moo fi jariñ bi ci topp tamit dafa ah, nekk loo xamante ni boo koy sàkku ah, ah, di nga di nga jànganteeg ay métit maanaam di nga rafet di nga xiif di nga mar di nga tumurànke maanaam sax xam-xam moo di waaye nag bu dee da ngaa bëgg da ngay sàkku barke da ngay da ngay sàkku nag ànd ak ak barke ni da ngay sàkku xam-xam bul feeñal lool bul feeñal lool maanaam di nga rafle comme li ma leen doon wax sànq waaye bul da loolu képp koo gis mu koy def rek jàppal xam moo taxoon mu doon wax naan kon kaati man li dul bi wala buusa dana waxtaan waxtaan ji la waaye tamit ah, ki nga xamante ni tamit day sàkku xam-xam bu mu bëri te am njàmbat fee sax lor la waaye bu mu bëri ak njàmbat fee lor la maanaam bul feeñal lor mooy li ma njëkkoon wax mais fii bul bëri ak njàmbat la lay wax ak njàmbat mooy comme yi ma leen doon wax sànq rek ay dama mar duma naan yooyu nangam ak nangam comme rawatina euh, fi jamono toll su ma ñëwee ci mbokki élèves yi voilà étudiants euh, wala professeurs yi. maanaam seen xel dara du ci nekkul du jërëm loolu lépp ay xeeti wala yow nga bi sax nee na coono la ngay jàngonteel ci biir mooy métti gi ngay jàngonteel ci biir maanaam na feeñ ci biir waaye bu mu feeñ ci gis kat daa ne ah de moom wax dëgg yàlla moom yaa ngi ci sa jàmm waaye fekk la sax ñoom xamul suñ bi sax xam-xam maanaam melo yooyu noonu la a am moo tax ma laa tudd si biir sakk waa fa xaw ma te xatta taksula naas am na ndax xam-xam moom kenn du ko mu daal ne tamit ki nga xamante ni tamit day sàkku xam-xam bu bëggee xam-xam ba muy sàkku daal di bàkkee na muñ muñ xam-xam boo ko am da ngay muñ waaw ndax fi jógee boo xoolee fi jamono toll bu ne nit yi bëri na wóor maanaam njàngum moomu dëgg la ñuy jàng da ngay gis koo xamante ni day jàng jàng ba soxla waaye du xam dara fekk lam laaj ko joxe nam ko moo tax mu ni ah, moo tax mu ni fal xelmu doona ah, mu ni daawim xalaa darsin xamuni lu taale noonu fal xelmu laa laa yox taani may yax saa tawaat ba rabbuna abdal shukura maanaam sabuur maanaam da ngay nangoo nekk ab mooy ab muñkat bu wax bu nekk ngay nangoo nekk ab ab ab muñkat ab muñkat waaye tamit koo xamante ni da moo xam donga bi ne ci daara moo xam élève moo xam leneen ndax ku dul réviser kat doo jàng di ko fàtte ndax si biir da di ko xoolal waaye nag am sobu di anticiper. maanaam li ñëwagul nga ciy sox di ko xam moo tax muy daal maa laa dar si la loolu mu taali xan mu taali xan yaa way hakkin sin bi ka waa yata jam jam yaa way hakkin sin bi ka waa yata jam ah, waaye nii nga war a mel di da di nafar waaye nag di jéem a xool li nga xamante ni exergo yi ngir xam moo tax mu ya yaa way hakkin sin bi ka waa yata jam jam waaye acam ki nga xamante day day day day day toog lànk bañ a jàngi wala muy euh, feeñal ak tumuraanke ci moom ñu naan ko lu tax mu naan damaa xiif sëñ bi ne la acam kooku moo tax ak xiif ak yooyu yëpp da nga koy muy mu mel ni sax dañ koo laaj ki nga xam ni day sàkku xam-xam nuuru ci xam-xam bi rek kooku fan lay jëlee wërsëg bu muy mën a dundalee ko sëriñ bi toll ko ne ko ah. laa tastaxil bi risqi is rabbul wara mutakabbirun risqal lasi yatahallam maanaam ki nga xamante ni nag mooy sàkku xam-xam soxla wut euh, wël wëlsëgu adduna wu ndax kii sàkku xam-xam sunu borom moo ko yoral wërsëg nee sax daanaka fonk fonk fonk fonk bu sunu borom fonk di sàkku xam-xam tax buy dox malaaka yi dañ mboolem li nga xamante ni day yëngu ci biir xam ay jën yooyu noonu dañ koy loolu moom loolu moom leer na ci hadiis suñu sallallahu alayhi wa sallam kon kooku moom soxla woo fi moom soxla woo ma moom soxla woo ba suñu at ndax jàng ënd jàng ëndut wuti dara dafa fiir bu fekkee da ngay jàng bu ko booleeg leneen te sa xam-xam bu xam-xam bi ko waaye nag mu ne ki nga xamante ne tamit da ngay jàng bu fekkee bëgg ngaa am i xam da ngay war a da ngay ragal yàlla waaye nag di njëkk waxsal ilaa di jiile gi mu taxaat sax isla yanaaru ne asma ki nga xamante ni day sàkku xam-xam day nangoo ragal na ragal yàlla waaye nag tasaamu di njëkk. te bëriwul sax te bëriwul bëriwul noonu waaye njëriñ li ak dafa bëri solo ba nga xamante ni képp koo xamante ni ubbi lu ko nga yor ko yaakaar naa ne Euh, dox jëm ci xam-xam doo ci am benn jàqare doo ci am benn benn benn. imaam Xasaali imaam imaam imaam moom euh, dafa demoon ci benn Sénégal bu ko daan jàngal bi ko man bi damay fàtte damay gaaw a mu ne ko euh, da ngay waxtaanee ko mooy kon kii saako xam-xam muy mooy may rek loolu ah, ah ki nga xamante ni day saako xam ndax day dox diggante rek waaye rek sëriñ bi mooy ku sax xam-xam day watane lépp loo xamante ni ah, mën naa dox si diggante xam-xam rawatina ci jamono ji ñu nekk sànq jotaay mais jotaay yi ci gën a ñàkk solo mooy jotaayu jigéen waaw jigéen dañ lay xëcc di la jëme ci alkane kon nga ko ah, boo moytu rek am xam أعظم من معك الكواحب والخوالي واحتجب إن تدنو منها مردا لا تسلم لا تسلم kon nañ leen nañ leen wote bu baax a baax ne nag buñ ko saako ngir ngir nañ ko saako gi nag na ànd ak pas te bañ ko teg ci benn ndax bu fekkee da nga am ko ba noppi bu ko wala àdduna bi tax la nga di ko sàkku ëllëgee oh, da ndax kat ah, bu fekkee bu fekkee bu fekkee bu fekkee li may soññee ndongo li nga xam ne moo ne ci daara ji kooku na góorgóorlu ci am bindam waaye nag tey la fa yaa hmm. ngi dégg te góorgóorlu waaye tamit mu jël adduna bi nag bu ah, ko jaay àllaaxira waaw moo tax sëriñ bi daal ah, bi oxra yaa fataa man baaxal mu naan bi maanaam bu jaay sa adduna mu jëndee ko sa àllaaxira bu fekkee da nga koo bu ëllëgee da koy waaye nag bu fekkee ki nga xamante moom peut-être day sàkku adduna ah li ma mooy. moom adduna jamiy sàkk lam cay am ndax xam-xamu adduna dafa am xam-xam dafa yàlla kii da koy sàkk ngir adduna kii da koy sàkk ngir ëllëg bu fekkee nasaraan ci adduna la yam wax na fexe ba mu sàkkin ko sàkk sàkkin bu barke yaa ngi bu am barke waaye nag bu demee nag ba suñu borom defal ko ci ak mën ak tal ay moromam loolu bokk na ci. Euh, liy barkeel xam-xam waaye tamit euh, bokk na ci liy may nit ki xam-xam ndax sëñ bi dafa wax ni nit ki day dafa war a tare ci xam-xam waaw kon nag man daal maa ngi leen maa ngi maa ngi ñaaxaat ndaw yi ñu góorgóorlu dox ñu ngi sàkk xam-xam ndax mooy seen njëriñ addina mooy seen njëriñ la baax ah sama kàddu xanaa bi soñ sama mbokku Gambie dafay ba commencé te man muy Serigne nga xam ne yaakaar ñu moom te barkeem bi téye suñu lépp ndono li nga xamante ni moom lañu moom fi bàyyi mooy xasite yi dinañ ko wagal lay kàtt te bañ te bàyyi di ko jàng di ko di ko di wala di ko wala di ko ndax lu for la ci moom daj na ci ne te dañ koy dindi kenn nit ku xool kon tey nag bu lépp bu lépp génn ci àdduna feeñ tax a caaxaan te xam naa di leen di leen sant rek ah, di leen gërëm ci seen liggéey bu rafet yàlla am na solo ñaan suñu borom ah, dëgëral liggéey bi ci seen liggéey bi defal leen ci lu kawe seen yoon. asalaamaaleykum